sor kenn nelawatul ba Yar Ndor parce que amuñu ñu ngi réclamer benn poste benn poste brigade yàgg naa ko wax aussi benn poste benn brigade de euh, gendarmerie euh, en plus yàgg naa ko déplorer mooy usine Sonacos bi nga xam ne nii à chaque fois moo fi nekk vraiment di polluer euh, nit ñi te benn retombée doomu si ba soog gisu ko ci loolu dama koy je l'ai je l'ai tantôt crié décrié haut et fort dama bëgg ñu corriger loolu bu ñu fi yàlla tegee danañ def les démarches yi nga xam ne nii moo ci war. pour mun di gis bopp ci usine Sonacos ñu ngi réclamer aussi bu ñu fi yàlla teg am nañ programme boo xam ne ñun ku ñu xam xam ne ñun sax dañuy dañuy woowee le candidat de la jeunesse parce que on est tout le temps avec la jeunesse de Sibassor nest pas te li ci gën a nekk mooy mooy amuñ sax depuis bi mu nekkee ba léegi la nawetaan dee Sibassor ñëpp xam nañ boo yi tey bu nawetaan amaatoon suba benn booy nekk tuuti en règle parce que ñëpp dem nañ fubali ci kenn mënatuñu nekk en règle li ko waral mooy nawetaan yi fi nit ñi xamoon bu nawetaan Sonacos ñu bëri dañuy yàkkamte wàcc pour ñëw seetaan si mais loolu kenn fi ñëw rey ko ba mu dee wet wet wet boo waxee mu ne la football affaire caakaan la mais ñun xale boo ko boo nit boo ko xeebaloo soxlaam vraiment pour man loolu ray nga ko donc ñu ngi réclamer stade boo xam ne nii digne de son nom parce que pour l'épanouissement de la jeunesse de Sibassor tey jii ñu na nañ programme boo xam ne pour cadre de vie parce que loolu pour man vraiment c'est c'est pays euh, commune sans cadre de vie loolu pour man c'est révolu comme nag tey ji bu ñu fi yàlla tegee loolu yëpp suñu programme la intrant euh, déploré woon nañ ko corrigé nañ ren mais nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi gën a tàllal loxo di gën di laaj loolu yëpp la ko waral mooy am nañ vision claire des choses bu ñu fi yàlla tegee war nañ mën a fexe relever ces défis tey euh, tronçon bi jógee Sibassor dem Njëbel mais loolu pour man maire yi nekk maire yi ko seq bu ñu waxoon bu ñu daje woon porter cette plaidoirie yi yaakaar naa ne loolu dana saafarawu parce que bu la nit ñi tegee kat da nga war a nekk seen bayfal di leen jaamu. la li li li man benn adversaire laa am mooy parce que boo bëggee di bëre kenn nag di xool di xool keneen yaakaar naa ne mun na métti ci yow man kenn la visé mooy ki fi yàlla teg te man nag ah, dama